jërëjëf euh, mbokki internet yi jërëjëf euh, mbokki réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel tey nag dellusiwaat ak yeen il leen émission bu naram solo tey kima seet si bëgg a waxtaan ak moom ci réew mi la dëkk di doomi réew mi juddoo ci réew mi di jëf lu baax ci réew mi di un produit de la Médina waaye it di doom Médina ba tax lépp lu mu am soo ngoon di ko bokk ak wa Médina dans le social rawatina ci walu éducation ci walu santé rawatina ci walu sport kooku moy kan kooku moy le vice président de la e Jaraaf kooku moy kan kooku moy le président de la e Dames di kenn ci réew mi waaye kenn di kenn ci do Médina di Youssou dial président maa ngi lay nuyu. Bour maa ngi lay di nuyu di nuyu wa Dakar ci di nuyu aussi donc yéen seen téléspectateurs yëpp di am mbégte nak di len di dalal ah, di am fierté aussi parce que tey jii li ngeen def aussi donc lu rëy la bo la ñëwee donc ne mu seet donc dama ci contane dama ci am donc fierté ndax Dakar ak Actu ñëpp xam nañ aussi li mu représenté si dëkk bi ak li mu représenté ci réew mi légui fu nit bëggee am information Dakar ak Actu nga koy seet kon nak bu ma Dakar ak ñëwee ñëw si ah man ma ci am contact ay eh, man ma ci am dëkk man ma ci am fierté. tay bu ñu doon tay ba ma doon résumé kan mu Youssou Diall. waaw Youssou jall mom ben doom bidna la xalé bidna la parce que man bidna la juddoo. màggee fa yaroo fa yàlla def bi ma amee bac ba pare nag ma dem France dem jàngi mm. waaw bi ma demee France nag jàngi yàlla dogal na nag aussi ma toog fa foofu presque lu mat 9 ans waaye neuf ans yi fa toog yëpp du am du am at boo xam ne du ma ñibbi si Dakar du ma ñibbi si ñoom Medina saafante ak waa Medina nekk ci ak waa Medina bon nit ñi nag bi ma ñibbisee nag donc commencé moo tax ñu bari nag Sonatel bi ma doon liggéey si lañ ma a xamee si sama activité professionnelle ma toog tuuti nag ma jógee Sonatel nag dem rejoindre donc beneen société télécom bu mag nag boo xam ne boo peut-être fii si dëkk bi xamuñu ko waaye ci àddina bi ñëpp xam nañ ko société bu ñuy wax donc Oberture euh, bu weesoo loolu aussi si nit ñi si liñ ma gën a ràññee mooy aussi si wàllu sport hmm. parce que yàlla def na may doomu aussi jaraaf may doomu jaraaf samay ndijaay samay pap ñëpp dokkoon ay dirigeant jaraaf bi ma ñibbisee ba léegi nag may militer aussi au niveau du jaraaf man maa ngi ñibbisi Sénégal donc daanaka en 2000 waaye deux 2000 ba léegi maa ngi jaraaf euh, euh, maa ngi jaraaf nekk fa gravir fa échelon yëpp nag mm. ba yàlla def nii ren ji euh, bi cher Seck nekkee président ma nekk son vice président pa nekk président donc la section de football mm. au delà aussi donc de jaraaf ni ñu xam na ci Damels boo waxee Medina sax ñu bari man damay romb parfois tur bi xam nga Youssou jal bariwul da ngay dugg sax ci benn euh, benn boutique wala nga dugg ci benn maanaam télécentre di def donc wari ñu ne Youssou jal ñu ne ay ah Youssou Dial président Dames président Dames bi nag moo gën a euh, law parce que Dames nag damaa ñëw nag fekk mu nekk benn équipe boo xam ne nekk ci ay tolof tolof ñëpp di naan équipe bi du mës a jël coupe ak yooyu même bi may nekk xale sax avant may jàngi dama ne woon man mii bis ma yàlla dimbale ba ma am moyen Dames kenn dootu ko gañe yàlla nag defal ma defal ma loolu mu doon sama mbëbët ma ñëw nag yàlla may ma tuuti sutura ma ne sutura googu nga xam ne tey jii yàlla may na ma ko dinaa def tuuti tey jii ba nga xam ne dames dina nekk équipe boo xam ne tey jii ku dajeek moom doo nelaw mm. yàlla nag defal ma ci ay succès ñu am ci daanaka li ma ci nekk ak loolu gañe ñu ñetti yoon coupe euh, coupe bi ba pare boole sax def fi loo xam ne aussi daanaka benn équipe mosu koo def doublé 2016 dañoo cadet yi ak seniors yi ñëpp dañoo jël coupe bi muy 2017 la daanaka sax cadet ak senior ñëpp jël coupe bi ma def fi loo xam ne kenn defu ko mm. moo tax nag léegi ah ba léegi tamit aussi xale yi naw ma ci loolu moo tax xale dammel si yëpp naw ma ci loolu waaye nag man aussi dama naan du ma nitu dammel si rek parce que man bari na fi ay ASC yu nekk Médina te man duma def ci loo xam ne donc day féewale ay nit mm. te ASC boo xam ne tamit aussi ñëw nga sollicité ma ne ma ah ñun dañu am match wala am dara même boo dajek dambal sax mën naa laa jàppale donc may la xal Medina dal moma ñor mm-hmm. te ñor bobu nak aussi donc ci Medina ma nekk ci ñu bari sax di wax na ma Youssou da nga war di politique parce que yow li ngay def ni ci social ak lo yep tuddoo politique amul njëriñ mm-hmm. man dama doon def rek te yalla mo tax may may def parce que aussi non lañ ma yaré sama papa allah ji dudd Dial non la melone aussi donc ci ci quartier bi nekkon mom nak mom politicien la won di def lu bax donc ci ci quartier bi mu yaré ñu ci lolu mu ne Youssou nit dama yàgg di ñu wax mu ne ma bés boo demee ba yàlla parce que nag li ma gën a métti nag moom bu muy génn àdduna boobu étudiant laa woon. Mm. kon fekkewul lu bari sama njëriñ. Mm. loolu aussi donc lu ma xawoon donc métti la waaye ndax ma doon yar ci loolu ne ma bés boo demee ba yàlla may la nga mën ko li may def nii na nga koy def day def rek te yàlla tax ngay def loo am bokk ko nit ñi man moo tax lu ma am dama koy bokk waa Médina gis nga fii laa dëkk Mermoz waaye ñu bari yaakaar ni Médina laa dëkk te fii laa dëkk man depuis léegi donc depuis 2009 maa ngi dëkk dëkk fii Médina bu ma nekkee xale laa fa gëj mais dama gis waaw mhm. euh, buy wax ci wi juróom. waaw man damay sentir que sa voix tremble. waaw dafa am benn. fait marquant bu mu sotti la koy jur. waaw wala Youssou dafa sentir solitude ci moom après. Euh, décès waaw wax naa ko léegi loolu euh, regret la parce que tey jii xam naa ni tey jii sama papa li ma nekkee ak li may doxalee ak population ak nit ñi fi mu fi mi ngi gis mi ngi kontaan ci man. parce que loolu am na fierté parce que loolu la doon séntu si si si samay frère ak man. sumay frère ñu ci bari nag ak sumay sœur ñu bari jigi bitim réew new ñu fi de temps en temps dinañuy ñëw vacances mais man la yàlla dogal man ma nekk fi te yàlla may na ma aussi peut-être tuuti sutura koo xam ne mën naa ko bokk ak nit ñi te loolu lu ma xaw a metti la lu ma xaw a rëgati waaye yàlla mooy dogal mm-hmm. bu doon tey jii su ma sago tey ji yàlla sama papa tey ji li may def ni mu fekkee ko nii ci àdduna waaye xam naa ne fi ma tëdd aussi mi ngi koy gis te mi ngi am contenté donc ci ci man mu ngi gis euh, mu ngi am contenté bi sentiment de fierté. Mm-hmm. waa am dëgg doom mm-hmm. euh, doom ju ne boo sa ñoon nduru sa bàyyi Mm-hmm. Euh, kon góor gi fa mu tëdd ca barsax su mm-hmm. la bar yàlla na ko yàlla boole seen amiin benn aljana amiin euh, mm-hmm. am na ak ku relation Médina euh, koo def mu nekk de des relations limitrophes waaye gis nañu benn relation bu particulière mooy sa diggante ak Cheikh Tidiane Ba waaw waaw su ma diggante ak Cheikh Tidiane Ba loolu dama ci sawar donc di ci wax xam nga man daanaka kenn mosuma woon dégg donc ci ci ci politique mu am ay jamono ma gis daal toog di gis Cheikh Ba li muy def ci Medina ma gis ni aussi moom mu am ambition yu kawe ci biir Medina ma ne ah man Cheikh Ba mi ngi nii am ambition yu kawe donc ci Medina ci génnee alalam donc di ci def di faj ay soxla foo ko nit sollicité donc mu wuy la ma benn bés ma toog di waxtaan ak moom mu may wax daal di ma expliquer li mu bëgg a def yëpp ci Medina te li mu bëgg a def ci Medina mu méngoo aussi man ak vision bi nga xam ne man moom laa amoon ci Medina. ba naan man li ma sañoon wax li ma sañoon ni Medina noonu la war a mel cheikh ba daanaka loolu la ma expliqué ma ne ah man de cheikh ba muy war ñoo gën a gore parce que ñu ñëpp ay doomu Medina lañ comme moom euh, yàlla may na ko donc wërsëg te moom mi ngi koy bëgg a partager ak l' ensemble de la te bëgg na aussi changer image bi ma ko Medina ma ne man pourquoi pas ma dem ma jàppale ko man du ma dem ma jàppale ko parce que ñun même bu ma nekkulee politicien nit aussi goxam rek la am. du ma am suma benn beau frère bu nekk fële donc Nancy et puis mu am fa ay partenaires yoo xam ne dañuy yëngu ci domaine donc social euh, ci biir waxtaan ñuy waxtaan man na ko daal man daal vraiment man Médina lépp lu mu am man ñoom laa ko yéene mu ne ma Youssou man dama gis ni da ngay sonn aussi donc ci Médina bi gis nañ dingay ngay fay ay ordonnance di ngay di ngay di ngay joxe ay dépense tabaski da ngay sonn ak loolu yëpp mais aussi bëggoon nañu aussi donc ñun ñu jàppale la man leen waaw ah boo ma bëggee jàppale ci loolu moom dama ci dama ciy kontaan parce que nit aussi ñun bu ñu nekkee aussi ay kilifa am ay relation dañ ko war utiliser aussi pour dimbali ci waa Médina bi ñu waxtaanee loolu ma xam ne dañuy intervenir ci école yi ma ne ah première école ba bi nga xam ne bëgg naa kii mooy école Mbirine bi ñu ñëwee nag école Mbirine ñu xool xool gis ni aussi donc Mamour Diakhaté tamit école la bu ñu war a dimbali parce que Mamour Diakhaté boo ko seetloo am na ay kilifa yu mag yoo xam ne fa la ñuy génnee Cheikh Ba mi nga xam ne tey ji li mooy leaderu donc CATB la jàngee donc école boo xam déjà moyens yi bariwul te mi ngi génnee ay kilifa lu jar a jàppale la moo tax nag ñu ñëwoon jour boobu indi fa donc ay matériel yu yu bare bari fourniture scolaire yu mënti nekk rek indi nañ ko foofu indi fa ay tablette aussi donc ay iPad ak loolu yëpp donc aussi donc ñu indi ko fa waaye loolu aussi étape bu ndaw la rek parce que am na leneen loo xam ñu ngi koy waajal donc lu rëy loo xam ne war nañ ko defal école bi dinaa yëpp mm. li nga xam ne tey ji moom lu tubaab di wax nag la la fraction numérique mooy tey ji boo gisee doomu tubaab yeeg ak ñi nekk si yenn écoles yi ils ont accès à l' informatique alors que ji ñi nga xam ne tey ji ñoo nekk si école populaire amuñu sax salle informatique man tey ji sama mbëbët tey ji moom mooy école bi dinaa yépp am salle te am naa te am naa yaakaar ni fii diir bu gàtt lu toll nag si 300 ordinateurs tey ji war nañ ko indi pour équiper école bi dinaa loolu moom ji tey ji moom mooy suuk tey ji suma ambition ci école yi pour dimbali leen dimbali xale yi tey jii ba nga xam ne tey jii mën nañu am donc day formation yoo xam ne tey jii dina ñu mën a dem ci école yu mag yi. boo gisee waaw fi mu toll ci mbir waaw waaw mënoon na voler euh, avec ses propres euh, mais Youssou defu ko. waaw pourquoi le choix porté waaw gis nga loolu ñu bari dañ may poser question man daanaka ñu bari sax. su ñu ma jegee et cetera dañ ma koy wax nan ma noo Youssou lu tax donc demuloo yow kenn ak et man man leen man politique wax dëgg yàlla. vraiment intéressé wu ma. du sama fort du sama fort daal man politique man daal sport bi. damay yëngatu sport bi rek. donc doy nama, ma parce que tey jii maa ngi lay wax ne maa ngi mais maa ngi aussi si fédéra fédération bi bi nga xam ne tey jii man maay vice président commission donc sponsoring. Mm. yooyu yëpp ma nekk ci. xam nga jaraaf tamit ma nekk ci nekk ci vice président nekk ak nag suma mak ak suma xarit muy Cheikh Seck sama diggante ak Cheikh Tidiane Seck aussi ñëpp ñëpp xam nañ ko. Mm. loolu kenn voilà loolu moom ñëpp xam nañ ko suma mak la suma xarit la. bi ñu bi ma moom tamit ñu waxtaan ci ay affaire engagement politique mais bi ma demee ba toog ba xalaat ni man mii bu ma demee bëgg a dem politique rek man mii daf may daf may sonal daal vraiment man amaguma motivation boo xam ne tey ji man mën naa demal sama bopp tey ji motivation boobu ci politique fi ma toll nii Youssou Dial amagul motivation boobu ñu bari mën nañ mais Youssou Dial tey ji yow mën nga demal sa bopp ak yooyu mais loolu aussi pour nga dem ak sa bopp il faut nga am ni yow mën nga ko léegi le moment man ci li ma jàpp rek mooy gis naa ku mel ni donc Cheikh Ba mu sollicité ma pour ma ñëw ma jàppale ko te gis naa ne aussi moom gis naa ni muy ni muy sonnee gis naa ne aussi bëgg na Médina te ma xam ne aussi donc nit ku nit ku baax la benn maanaam sax mën nañu wax référence la ci Médina ma ne bon naa dem ma ma jàppale ko pour le pour le moment naa dem ma jàppale ko pour le moment mm-hmm. Mm-hmm. Euh, Médina euh, mm-hmm. defoon festival culturel bu rëy euh, ren ñu di ko waajal gis ñu caravane bi keroog li mu rëy ni ci ful Euh, yàlla def ñu jël lépp loo xam ne ci wàllu organisation la jëm. Mhm. Euh, teg ko sa loxo. Mhm. festival bi lu tax cette fois nag. Mhm. ñu yëkkati lépp lu laa jëm ci waaw xam nga loolu sax balaa may doog a wax donc donc ci gala ba damay remercier déjà Cheikh Ahmed Tidiane Ba. moom mi nga xam ne moo ñëw am ci man confiance. jël lu toll ni organisation donc gala boobu dénk ma ko. bi mu ñëwee ñu waxtaan si mu ne ma Youssou daal donc damaa bëgg yow gala bi nga kii ko. au xaw naa am tuuti réticence parce que loolu aussi sas la. sas la mais aussi fierté la moom mu xool ma. ne ma Youssou lu dal organisation bi yëpp man tey jii yow yaa ma ci doy yow laa bëgg tey jii nga nga kii gis naa ni sax yow sur le plan politique engagé wuloo bu baax waaye donc man mi galaa bi yow laa ko donc bëgg bëgg a pour nga doxal ko bu ma ko waxee man nag ah loolu am naa ci mbégte lool ba pare nag mu ne ma galaa bi bëgg naa dèjà ñu ngi mobiliser Médina yi mun na am benn animation boo xam ne dina am nii ci biir Médina bi Médina bi ñëpp xam ne tey jii proxime bi nga xam ne man maay président ak nga xam ne moom laay jiitu mm. ni ñëpp xam ne aussi que ñun ñi ngi fi fi ñu avant élection présidentielle bi ba légui donc ñun ñu ngi fi et ma bëgg aussi gala bi aussi ñu am ci xaalis. Hmm. parce que li ci gëna am solo am solo moom moy gala bi objectif bi moom moy récolter ay fonds. Hmm. bu ñu récolter ay fonds xaalis bobu yëpp ci waa Médina lay lay lay lay lay lay lay nekkat loolu motax man ma sawar ci parce que c'est une c'est une c'est une c'est une chose noble. waaw xaalis boobu naka lañ koy distribuer waaw xaalis c'est sur la base donc de projet. parce que daaw moom moo doon il y a deux ans lañ defoon première édition bi première édition bi bi ñu ko defee. Euh, yàlla dimbal nañ ci aussi donc amon nañ ci donc xaalis bu bari xaalis bobu yépp dañ ko distribué waat waa Mbidnaay moy association jeunesse association famille ak yoy ak association sportive yi. ni ñu koy distribuer moy dafa am ben comité toujours bo xamné mom lañuy mettre en place ñoo xamné ñom ñoy réunir gis projet yi

Euh, doxal ngeen ko ci benn anam boo xamante ni ko du am peut-être appartenance mm. parce que doomu Médina yi dañu mm. bari mm. Euh, doon ay divers cadres yoo xamante ni peut-être bokk ci benn camp politique mm-hmm. waaw parce que ñun euh, soirée bi aussi bu ñu koy organiser dañ koy organiser pour yaatal ñëpp dañuy wax ni pour doomu Médina yëpp la quel que soit boor bu ñu mën a bokk parce que tamit loolu ñun dañ koy def pour population Médina yëpp moo tax du ñu exclure nag kenn mais mais affaire bi du ñu ko exclure kenn affaire bi nag lu tax tey jii sax ren jii bon mu xaw a dégg daay parce que aussi man comité d' organisation aussi Youssou Diall lañ ko jox te Youssou Diall bu jógee bay organiser caravane caravane bu du tuuti parce que ñëpp nañ génn ñëw jàppale ko nañ Youssou Diall mii moo nekk ci kaw moo tax affaire bi du tuuti mm-hmm. waaw loolu tamit aussi donc euh, am na ci soirée bi nag amul coloration donc politique parce que dañ jël waali waali moom ñëpp xam nañu parti boo mënti nekk ak foo mënti nekk wala foo mënti nekk da nga koy bëgg mm. waaw da koy bëgg nit ñi nag jeunes yi ñoo ko bëggal donc seen bopp moo tax nag kon bu ñuy dem bay dem grand théâtre dañuy dem ak ñëpp mm. exclure ñu kenn billet yi moom xola dañ koy dañ koy jaay ku bëgg a jënd da ngay jënd mm. ku bëgg jënd da ngay jënd donc loolu moom donc amul amul benn problème ci loolu ogambe a sot wala amee daan dañu mën a sot dëgg la wax naa ko keroog li li ma gën a remarqué ci amee daan mooy dañu mën sot moo xam seen waykat moo xam seen footballeur ba dafa dem sax ba influence bi ay ñoom Youssou Diallo ak ñoom Cheikh Yane ba am yi loolu dafa expliqué dëgg la mooy da ngay ci waroon tey vidéo Youssou Diallo même la bu ñu commentaire da ngay xam ni ñii ce sont. dëgg la des filles de la de la commune. tey su bu ma doonoon laaj mhm. waaw Medina liñ ma defal bon am na sax ñuy wax naan Medina yow li nga leen defal ba léegi defal gu nga parce que yaa leen ko laajugul. waaye Medina aussi liñ ma defal man dama am aussi sama ay euh, rakk peut-être que bu ñu déggee interview ils se ils sama ay booy la ñuy wax ku am na ñoo xam ne foo leen tudd ñan ñi ay boy Youssou Diall lañu. te fu mu leen woowee ñu wuyu si ma parce que tamit aussi midna yow yaangi wax nan midna dañu mëna dañu mëna far mm. mais parce que lool aussi midna dañu bëgg ku leen yëg midna mm. dañu bëgg la te ñun dañu nek ay leader yo xam aussi dañu yëk wa midna mm. maa ngi koy wax sank gis nga man muy weekend muy lepp bu ma wàccee wala à partir de 18 h ku ñëw rue 19 fa nga may fekk ma toog ak ñom ba ba ba timis passé ba julli timis ma dogo ñibi ñibbi suma suma suma suma suma kër donc ñun aussi xam xam aussi nek ay jeune midina xam wa midina aussi di yag di saafante ak ñom ba pare yëg leen parce que jeune Médina dañu bëgg ku leen yëg waaw damay dund Médina parce que ñun parce que eh, parce que parce que yow si ñoom loolu la ñuy gis aussi donc si ñun moo tax aussi ñuy jox ñu benn cër boo xam ne fu ñu xew xewlee donc ñu ñu ñu wuyu ñu wuyu ñu fa man amoon na sax élection présidentielle si ñaari fan laa fa woote woon benn meeting bu rëy mm-hmm. ñëpp ñëw

waa Mbidna ñoom xale Mbidna yi moom xam nga ñoom dañu dañu dañu dañu fashion ñoom dañu dañu dañu dañu mën a sañse te dañu civilisé ñëpp préparé wu ñëw wuy suñu donc grand théâtre parce que ñu xam ne aussi dix mille francs boo jëndee billet xamal ni mën na jur ay million ëllëg pour sa association ak yooyu moo tax nag ñu bëgg nag nit ñi ñu préparé wu ñëw si soirée bi teel a ñëw ñu ñëw ñu def soirée boo xam ne kenn du ko fàtte fii si si si Dakar ak Sénégal parce que Wally Seck nag moom jël na ay toutes les dispositions nee na moom yéen moom dama leen di beral loxo soirée mom ku fa ñew di nga gis lo xamné donc encore une fois damay lancer rek appel à l'ensemble des populations de la mak ndaw jigen ñu ñew ba nga xamné tay soirée bu aujourd'hui dinañu joindre l'utile à l'agréable moy mm. dinañu fétu dinañ am animation nañu seen xol waye tam ñu xamné tamit bi nga xamné nous donc c'est qui bi pour ñom ñoñu nga xamné ñoo donc di participer ci animation bi. Mm-hmm. juste la remercier waaw fu mu ne nii man moom du ma du ma terminer te du remercier aussi donc le, président donc Cheikh Ahmed donc Tidiane Ba. Mhm. bi nga xam ne tey jii moom moo ma euh, le comité donc d'organisation du gala donc 2000 2000 2020 mille deux mille vingt di ñaanal yàlla di ñaanal aussi mbibét yi mu am donc ci mbir naa yàlla yàlla sottil ko.

on a met en place ben comité organisation boo xam donc bu dynamique boo xam donc ñu ngi liggéey pour la réussite donc di gala de leen remercier yéen ñi waa Dakar Actu ce déplacement bi ngeen def fi ñëw fi et ça c'est une fierté donc pour pour pour moi di len di len sante vraiment et que donc du content aussi si li ngeen li ngeen def ça me voit droit au cœur et di ñaan yalla xana bu samedi inshallah yalla defal ñu jamm yalla defal ñu jamm soirée bi que ça se passe bien ñepp feetu ñepp feetu medina en tout en entier donc ñepp feetu yalla may ñu aussi ndam. euh mu ngi nonu gis nga CATB Proxim euh diggante Chamatiane ba Youssou Diall dafa naa ni diggante la rek ak euh bës doxu ci lekul bayo medina lekul fàtte waa Médina boo duggee Médina ki nga xam ne mooy wayam ben la kon mbir ma ngi noonu la set la. waa Medina Youssou wax na ko dangeen ngeen a fashion waa Medina samedi Youssou Diall wax na ko da ngeen a solidaire entre vous kon le 7 au Grand Théâtre 19h waa Medina ñëpp nañu fa daje xale yi sañse ba rafet ñu góor ñi sañse ba rafet waaye bu leen ko fàttee ça sera en direct sur Dakaractu ñun ak yéen dund ko live en direct kon ñu di jox dig daje ba beneen yoon sur Dakaractu